jërë ngeen jëf Macky Sall nee na waxi troisième mandat bu ko ko kenn wax wax jàngi ci l'observateur ubbil yéene kay bi gannaaw ba mu dajee keroog ak waa secrétariat exécutif national bu APR démb daje na ak député yu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar doon leen yeggee ak a leeral réforme yi mu nësër ci réew mi fa leen waxeet li tax mu dindi poste premier ministre ci réew mi nee na yi mu namm li mu ci jublu mooy lu gën dooleel démocratie ba ñuy wax Macky Sall jëlee kàddu gi jàkkaarloog député Benno Bokk Yaakaar yi ne leen waxi troisième mandat bu ma ko kenn wax bëgguma dégg wax joojee nañu wax ci mandat juróomi at bi nekk ci suñu kanam la si ne kay nañu Macky Sall nee na xalaatul sax ab troisième mandat les éco nañu wax teel mujj rafet Macky écarté na totalement ak définitivement ab troisième mandat nee loolee du débat c'est un faux débat bëggul ñu di ci wax moom Macky Sall xalaatu ko sax ne jël na engagement yu leer ci wàll wi te du ca dellu gannaaw ginnaaw loolee wax ci dindi gi mu dindi poste su premier ministre ci réew mi ko it ngir ma demba nañu xam ne juróomi at am ci suñu kanam te juróomi du juróom-ñaari at lu ñuy def nañu ci gaawte way ci le quotidien nañu Macky Sall yokk na loxoom ma ngay accélérer la cadence ne lu jëm ci poste premier ministre bi ñu dindi ci réew mi projet de loi bi tey jii danañ ko waxtaane ci ndajam conseil des ministres bu alxamesee ñu jël ko yóbbul ko député ci assemblée nationale ngir ñu càmbar ko léegi nag képp koo xam ne ab député kaay mel ne ku naan ñu mu des nag léegi ministre conseiller yi woon ci mandat Macky Sall di jeex ana nu Macky Sall di def ak ñoom ci kenkenam bi ne ci jamono jiñ naan dañuy seere gouvernement bekk dañuy wàññi dépense yi ministre conseiller yu bëri ñoo ngi laaj lu nar a doon seenu ëllëg ci réew mi enquête nañu poste ministre conseiller mooy poste boo xam ne daanaka li ko tax a jóg mooy koo bëgg a neexa rek teg ko fa te ku ñu ne kii ministre conseiller la kookee lu mu gàtt-gàtt weer wu nekk dina am ñaari million dana am oto dana am essence dana am bureau lépp nguur gee koy gàddu mandat juróomi atam bii muy door bu doon ab xare la ñu ne ngànnaayam mooy wasa wasa maanaam fast track vox populi nañu gis nañ ñu ko gën a fast track nag yëral xët mu njëkku yéenekaay bi lakkati mburu yi ci réew mi tey ji la ñu tàmbalee géréwob ñetti fan tey mburu du am ci dëkk bi suba mburu du am ci dëkk bi ginnaaw suba it mburu du am ci dëkk bi fédération gi ëmb mbulañ say réew mi daje nañu démb ak Aminata Assome Diatta ministre commerce bu bees bi waaye li mu leen doon ñaan mu di ñu a dem i mbokkam nee nañu ni ko zile zone ca France noonee la koy defee ñoom it ci réewum Sénégal semaine bu nekk danañu ci tànn benn bés boo xam ne du ñu lakk mburu noonee lañ ko fas yéene jàppee ba koor gi baaboog ba keroog ñuy lijjanti seen i jafe-jafe vox nañu boulanger yi ñoom sa ñoo ngi ci mode fast track source a nañu fast track gi dem na ba ci trafic de bois gi ndax jàpp nañu ñeenti conteneur yu defoon bois de qualité conteneur yooyu Sénégal gii la ñu jóge woon ñoo ngi leen jàppee ca pooru Banjul ba ca Gambie pooru Sénégal bi ci Ndakaaru di port autonome de Dakar ka ko jiite di Ababacar Sadikh Bey libération nee nañu dund ca kër gaak na mu koy dundee neexul ne liggéeykat ya ca porum Dakar ñoo ko sulil ay mbóot yu xasaw ba noppi di sàkku ñu jële ko fa ndax ne nañu Ababacar Sadikh Bèye bu yàggee jiite porum ba di tuumaal nee nañu bokk na ci dafa am benn xaritam bu ñu naan Mamadou Seck moom la jël fal ko mu jiite fondation port bi bàyyi fa liggéeykat ya am na it benn immeuble boo xam ne dañu ko luyee daanaka boobaak léegi mat na at weeru yàlla sàkk ñu fay fa ñeent fukki million ak juróom te kenn na it benn marché boo xam ne dara leeru ca directeur général bu port jël marché ba jox ko waa ANSD mu di kër goo xam ne moom Ababacar Sadikh Bèye moo ko jiite woon laata ñu koy def directeur général bu port otonom de Dakar